Ousmane Sonko moomu sax ci la ñuy desandi ba tey Ouma mm. parce que gis nañ ni euh, fan yi mm. euh, yenn ci euh, ñi nga xamante ne ni ñoom waa benn Bokk Yaakaar la mën a wax gis nañ ñu ñuy com commencé di comparer li nga xamante ne ni kaddu yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ko keroog ci Kër Massar bu muy wax ni bëgg na gis ki nga xamante ni moo di xalif général des Mourides muy sëñ Mountakha Mbacké ba ñuy wax ne fi ñu toll nii dañuy bëgg a jël ay waxam di déformer ay propos am gars yi commencé ku nekk di ci am loo nga xamante ni nii yaa ngi ko ci sànni loolu tamit euh, naka nga ko gisee. non xam na benn mbir dafa am ci àddina. mooy Ousmane Sonko ku mën a politique la. te ñu bari man des fois damay toog ma ne fan la jàngee politique mooy lu tax man la ku mën a politique la mooy wax ju ne da koy wax. mais depuis mu wax wax jooju lu bari yëngatu na mm-hmm. même ci biir kër sëriñ si lu bari yëngatu nga dégg nga ay nit kenn wax dégg nga ay lii ne wax ni parce que daa am lu mu bëggoon ci moment boobu te loolu li ko wax loo waxu ko contre sëriñ bi de sama xalaat mm-hmm. parce que ki ngay soxla boo jooyee mu lay nax kooku doo doo koy merloo jublu ci loolu mais il fale le dire parce que wax bu ne dafay ay moment mais wax bu ne day jot mais aussi est-ce que wax na ko nag fa mu ko war a waxee loolay problème bu doon man may moom lu ne dama koy jëndee rek maanaam lépp lu ma xañ dama koy jëndee li may may sa Sonko sëriñ si gën a noppi ci réew mi imagine sëriñ Cheikh Saliou Mbacké kenn du ko dégg ci dara kookoo jël Sonko taf ci weeram kooku rek doyoon na ci nga jàpp ni mm-hmm. man li ma bëggoon yëpp am naa ko bu demee ci Daaru Musti day mel na ku bokk ca dëkk ba Sonko c'est le seul boo xam ne day dem ci këru sëriñ si jël jukki bu neexaste yaa ngi mu jël ab jukki tiim ko hmm. Idriss Seck sax mi daan tiitaroo ay aaye mosuma gis mu yor ab jukki ci këru sëriñ hmm. cest à moom ci dina ji la bokk kenn mënu ko ci génnee hmm. léegi nag sa façon de fair nit ku ne ak personnalité man Sonko dafa am loo xam ne danga ko koy man man dama ko nawee li mu gëm lay wax ak lu ko ci mën a fekk ak conséquences yi ak lu mu ci mën dégg ma dem gëm ne du naa fex d'accord maanaam bu nee tooy na mm-hmm. tooy na bu dee wow na wow na mais Sénégal kenn mënta dem mm. te doo ànd ak sëriñ si kenn mënta dem te doo leen bàyyi xel mm. kon tey jii lépp loo xam ne tey jii ay euh, ay raay dala koy may rek ay dompat di ko maye nay raay sëriñ si rek